asalaamaaleykum encore une fois ma bëggoon yéen ñi fi toog ngeen tàccu seen bopp bu baax a baax a baax ma bëggoon encore une fois ngeen tàccul ma suñu gan yi parce que temps bi xat na mais ils ont tout fait pour être là je voudrais par là commencer par euh, à remercier commencer par Pape Djibril Fall parce que moom moo njëkk a teew ma bëggoon ngeen tàcc ko bu baax a baax ma ci de Déthié Fall ngeen tàcc ko bu baax a baax ma ci toxtal Ayib Daffé di représenté fii waa Pastef ngeen tàcc ko bu euh, di ci Boun Abdallah John, ngeen tàcc ko bu baax a di ci également sama xarit sama ancien coordonnateur Fadel Baro, ngeen tàcc ko bu baax a Euh, di wax ni mi Mimi Touré mu ngi ci yoon bi Abdourahmane Diouf mi ngi ci yoon bi di fàttali rek li waral ñu amal waxtaan bi tey suñu association mu ngi tudd Géejawaay hip hop hip hop yaakaar naa ni yéen ñëpp xam ngeen ko parce que ren mouvement hip hop am na juróom fukki at ci juróom fukki at yooyu mouvement hip hop bi am na sañ-sañu revendiquer sa part

ñii nga xamante ne am na ñu ñu jox seen accord te ñëwuñu am na ñu ñu jox seen accord te ñëw mooy ñiñ fi gisagum ak ñi nga xamante ne ñi ngi ci yoon bi loolu aussi élément bu am solo la pour natt ñi nga xamante ne ëllëg ñoom la ñu war a wooteel parce que lan ban relation la ñu am ak kàddu parce que kàddu c'est important bu fekkee nag ma bëgg a jiite nga ne ma dinaa ñëw saxaluma la tàngal saxaluma la lem nga ne ma dinaa ñëw ñëwoote joxoo ma explication kooku man su may woote du ma la wooteel donc tey ñoom seen teewaay baromètre la effectivement pour mën a mesurer confiance kóolute bu ñu mën a am suñu diggante ak ñoom di fàttali ni nag symposium waxtaane démocratie Guédiawaye hip hop daf ci ànd ak Open Society Africa muy OSF fondation là, bu un peu partout en Afrique moi ñu jàppale depuis deux ans nous déroulons un programme programme de Mungi ngi en 2022 nous invité des artistes de la sous-région Nous jouons au Guinée au Mali au Mauritanie au Niger au Kenya au Ghana nous, nous ak ñun ñu liggéeyandoo wax suñu xalaat en tant qu'artiste, hip hop ci tolluwaayu démocratie en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général bi ñu ci loolu ñu euh, ren ñu tànn ay artistes yi nga ay la nekk culture hip hop bi liggéeyandoog ñoom formation sur les questions de démocratie bonne gouvernance transparence redevabilité biñ leen formé ba session de studio enregistré nous ñu génn benn compilation bu am solo compilation de nag daf ci am ay way yoo xamante dafa fàttali li xewoon ci événement yi am na bu ci bal réel yéen ñi nga xamante ne bëgg ngeen réew mi lan moo war a nekk seen impunité parce qu'il y a eu plus de 40 morts ban responsabilité une mesure qui est pour ñu lu mel nonu wax nañ également ci walu redevabilité redevali redevabilité hal haalpulaar dafa ko la xolaare nde ko fawru kalŋe so mo holi mama ko dum woni hoolaare manam bu amul saytu ba yomb est ce que suñu kom yiñ war denk ko assemblée natal ko un peu partout suñ leen ko ko yore donc momo waral ñu amal waxtaan bi nag li ci am solo mooy waxtaan bu inclusif la maanaam xooluñu ne kii Benno Bokk Yaakaar la bokk xooluñu ne kii Pastef la bokk xooluñu ne kii feneen ak feneen la bokk li ñu intéressé mooy Sénégal taaram démocratie la démocratie boobu nag ñun ndaw ñi wala ñiy yëngu ci culture di yëngu ci yeneen i mbir dañu am ay responsabilités yu mag pour suuxat loolu parce que héritage la ñun on a eu accès à la démocratie sans nous entretuer on a eu accès à la démocratie par des luttes intelligentes. Et ces luttes intelligentes, nous sommes une génération qui, a la qui avons la responsabilité de perpétuer cette lutte-là dans la manière la plus positive. De à travers cette activité, tous les membres de Guédiawaï Hip Hop, du secrétaire général aux responsables de l'environnement, aux chefs de projet, te au volontaire yi nga xamante ne ñoo nekk biir Géejawaay hip hop di fi yëngu pour jox Wakhinane beneen xar kanam parce que c'est quand même important ñu ngi fàttali nii bërëb bii nii ki tax ñu sos ko mi ngi tudd Malick Sarr alias Sarenzo biñ koy sos mu ngi ne mu ma seet si na ma lii ne ma man ak yow daawuñu laale dañu xuloo woon di xeex di jàppante suñu nit di jàppante mais dama bëgg ñu jël loolu teg ko fële pour sos dara pour ndaw ndaw djéjaway ëllëg lima ci bëgg moy ñu natal ëllëg natal ëllëg nak moy wajal ndaw ñi wajal ndaw ñi politiciens yi wala ñi nga xamantene dañu bëgg réew mi dañ ci am une grande responsabilité et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation vraiment c'est une marque d'humilité c'est une marque de reconnaissance euh Hip Hop vous remercie de la wax ni ñu ngi tambalé waxtaan bi léegi-léegi jërë ngeen jëf